mos si nangu tontu démb nag il a pris la parole devant le public mhm. ay s'est expliqué mhm. wedd liñ ko tégalon yépp bu cokkaas par contre attaque mhm. parce que gis nga démb da demb demb démb waxam bi da da beuri da beuri won ay ki de ay ay pic ak ay wa ñew ci ay ay ay pic la lancer ñëw ci parce que quand il dit que Moussa mosuma bénéficier de terrain mhm. d'avantage indu mhm. de tel ou de tel mhm. boobu am na lu muy waxal Sonko ah waaw mm. lu nit ñi xam lu Sonko xam ak lu Sonko am waaw te te di ñu ko nëbb coow ndax nag bu leen fàttee défi pour défi rek xam nga moom dafa défier moom Ousmane Sonko dafa défier Amadou Ba. Mhm. mais balaa défi boobu. Mhm. ma Madiambal Diagne dafa défier. Madiambal mhm. Diagne bu yàgg sax. loolu lu wax bu wax bu wax bu mu ne ko. Ah. si tu publies patrimoine. Ah. je démissionne des listes. loolu la wax. waaw ah, waaw itam. loolu yomb na. daf ko baax avoir quelqu'un comme député de moom. ah vrai je démissionne des listes. xam nga. Euh, sa sonko mm -hmm. ton ami ton frère. mm -hmm. li mu mun. Mhm. mooy fen loo nit. waaw loolu moom fort ku ko ku ko ku waxal 8h5 waaw huit heures dix mu tontu la. wa keñ legi ma njabal waxal lu lu toll -hmm. ngi mhm. ba legi ken la. Mhm. waye ma njabal dafa -hmm. pièce la ko tegal. Ah. dudu ko lu balé ni la demal France. bu dee bu dee bu dee tu es homme. demal France. Mm-hmm. bul dem sax en visite officielle demal campagne rek ñëwaat. Mm-hmm. boo duggee doo génn. Mm-hmm. man Jambal Diagne lancé na défi man lancé naa défi Thierno Alassane Sall woote na woo invité na ko débat. dëgg la mais booy bi la ko yónnee. waaw booy bi waaw moo ko tey booy bi la ko yónnee. dégg pour rester si Amadou Ba. durcir le ton cax na ba cax. Macky Sall wax ci manam en filigrane bo hmm. lire taxam bi japp na ni ki il n'a pas été loyal avec lui Macky Sall Macky Sall a été wa ba ci yaangi ñew wax na ko dim hmm de nga ju bax hmm ñu nak ke mom niñ ko xamé won wax na ba dugg ci chiffre hmm dindi na tuuma sax waji dafa juum parce que mom bimu koy wax la ma koy wax noonu ci ministère de finances ak yooyu. nekk fa woon moom fekk moom fekk ko fa. mais ça c' est vrai. Mm-hmm. dégg nga lu mm-hmm. te nee na moom gestion am def nañ ci audit. Mm-hmm. te nee na Ousmane xam na.